voilà jërëjëf euh, chers amis téléspectateurs euh, tey jii nag euh, ñu nek fi ci maire bu Tivaouane mo am audience foraine bu spéciale bo xamni maire bi ñom ñoko organiser and ci ak le président du tribunal de Tivaouane jamono jii nag daanaka dëkk faq fàq nañu ñëw gis nañ ni dal y a des milliers et des milliers de personnes yo xamni ñu ngi assiéger maire bi depuis ce matin à 9h liggéey bi nak dor nañ ko waaye nak nit ñi batay rek dañuy wax ni sax. organisation bi des na tuuti. associé nañ ci tam ñi nga xam ne ñoom ñooy imam yi tudd ci ngénte yi associé nañ ci tam centre de santé yi maternité yi waaye tamit euh, directeur d'école yi donc mu nekk quelque chose de nouveau à Tivaouane ñu ko doon xaar agsi na donte nag euh, dina metti euh, xam naa bu ñu jógee fii rek dañuy tàllal suñu micro ñi nga xam ne ñoom ñooy population yu Tivaouane. c'est vrai nit ñi ñëw nañ bu baax a baax en masse moo tax rek. ñuy lay remercier euh, mais di tàmbale aussi di euh, féliciter maire le maire de la commune ci initiative bu mu jël euh, dem waxtaan ak les autorités du tribunal pour que ñu jàppale waa Tivaouane yi nga xam ni doon nañ dund ay problème mu këyit yu bëree bëri bëri xam nga di ko dund ci anam yu méttee métti métti depuis des années booy xool depuis 2011 audience foraine amul Tivaouane

Eh, wala mariage wala dess dañuy ñew ñu déclarer ko mais ñeneen nak ñom ñoom vraiment sawaruñ ci eh, mu mm, lool nak mom mo solo mom moy solo eh, mbir mii lool tax maire def ay djégo dem gis président mu accordel ko audience foraine euh bu ngeen gisé population bu fi ne bi ngeen xamni sax ben journée rek doyul euh motax démb rek waxtaan nañ ci encore ak wa tribunal pour que bu luy wesso ñu def ay équipe duggu ci koñ ak ci gox yi euh, mën a enrôler le maximum de personnes boo xam ni amoo kayitu juddu euh, donc du yem tey rek euh, nañ ko continuer ba keroog daal ñuy enrôler le maximum de personnes. lii nag lu ko ëpp solo gisuma ko ndax kayit moom nit mënul di dund te amul identification loo am te amoo kayit amoo dara te Tiwaawoon problème amoon fi mu yàgg nag ni ko Tafa waxee ba léegi nit ñi mënuñu am kayit yàlla indi bés bii nag tey indi audience foraine. a ah, ñu enrôlé tabaarakallaaw loo xamante ni daal xam naa ne bu lii eggee daal Tiwaawan dina yaatu incha allah ci ñu am kay parce que lii bi ñu faloo lañ ko fi fekk détérioration des document di sant nag di gërëm la président du tribunal et ses collaborateurs parce que acte bi bu rëy la soo xoolee li daje ci mbedd mi nga xam ni Tiwaawan li ci ëpp amuñu kayit donc euh, li ñuy yokk ci li secretaire municipal wax mooy lenn mooy imam yi nga xam ni ñooy euh, tudd doom yi ñoom aussi dañ leen war a imprégner ci mbir mi ba nga xam ni ku tuddati doom di nga ko topp ba mu am kayit hôpital ni ngeen ko waxee aussi waroon nañ fa am koo xam ni bu génnee maternité rek document bi egsi yi dem tribunal bu ko defee dana wàññi yu bëri yu demee nii. sama këyit këyitu doom moo ma indi woon. si ba tey ñu ngi fi depuis 7 heures 8 heures moins ba tey ñu ngi fi toog di xaar ba 11 heures ñii naa juge bi ñëwagul trois heures la ñu wax nit ñi yàq seen liggéey ñoon ñëpp kenn nit ñi war a liggéey ba seen liggéey seen kër bàyyi ko fa bloqué ko bàyyi ko fa toog di leen xaar gisuñu dara te ñu ngi ni naaj wi dañuy bëgg waaw dafa amoon sama doom yi waroon na am ay papier ñoom laa fi indi woon pour ñu wutal leen ay papier tey waaw mais ñoom huit heures la ñu joxoon depuis boobaak léegi ñu ngi fii huit heures ba léegi ñu ngi fii encaissé nañu suñu xaalis jëlañu suñuy papier mais ba léegi gisaguñu président titina bi nga xamante ni moo fi toll nii dëkk bi toll na foo xamante ni nit ñi waruñoo dajaloo parce que feebar baa ngi fii nit ñi dajaloo naaj bu tàng nga ànd ak xale xam nga mën ngaa dem sax ba yàgg sax ñu indi fi feebar boo xamante ni nii sax kenn du xam fu mu jógee boo mën ngaa ànd ak xale mu dem tàngooru jàpp ko mën naa daanu xëm wala yeneen yu demee noonu encore conséquences yu bari daal am na ci vraiment daal ñu sañoon daal ñu jàppale ñu ci bu baax daal pour ñu mën am kër war nañ ko war a organiser waat parce que bàjjen gox yaa ngi chef de quartier yaa ngi fi directeur école yaa fi yooyu yëpp am na noo ni nii ko organiser woon nit ñi nañu am seen papier te kenn du sotti mais vraiment daal organisation bi moom baaxul moom baaxul daal nga Diouf Diouf sama wutal kayit ba am sonn ci bay wéruma mënumaa dox samay tànk di métti maa ngi ni dañ maa bés ba fii ne sama yaram sama loos day métti a fexe ba am ay këyit barke borom Touba. xanaa ñu lijjanti ma këyit rek jox ma ko ma ñibbi loolu dong la la neen ndax loolu dong ma ñor moo ma indi la neen ñoruma loolu dong ma andi la neen indiwuma fii lu may loolu këyit bi rek ma ñor dama ko defar sama doom ñeenti yoon ci tey mënumaa fexe ba am tey jii nag ma ñëwaat bëgg ñu defaraatal ma ko maa ngi fi sonn fee laa doon ay xale yu baax ñoo ma dimbali sax ba ma dugg ba nangul ma këyit ba xel ma ko waaye maa ngi nii mënu maa fexe ba am maa ngi toog di xaar ngir yàlla ak yonent bi barke barke daa baax ak barke sëñ sëñ Touba